de Deveau à la crème au champion moom la ñu tey jii dogo indil mu jógee nag fële ca brioche doore euh, direct sunu cuisinier bi nga xamante ni moo fi ñëw tey euh, fas ñu ko présenter Eva dégg nga boobu plat moom la ñuy indil tey mooy li ñuy wax rek de Deveau à la crème au champignon mm-hmm. euh, waaye rek ñu am fi une grande dame muy koo xamante ni ñu xam ko ci xarañteem ci li muy liggéey xam ko ci xarañteem ci sport bi nga xamante ni mooy loisir bi mu préféré muy volleyball muy doon loo xamante ni nag ñu bëri dañ ko umpale man ak Eva mënuñu ci lu bëri peut-être que basket la ñu gën a ràññee gën a ràññee football wala handball euh, léegi nag moom mooy ki fiy teew rek waxal ñu li nga xamante ni euh, mooy li muy liggéey mooy volleyball bi ñu gën a xam au fait lan mooy volleyball gën a xam au fait euh, ci yan fànn lañ ciy duggee ak it ban âge lañ ciy dugg waaye ci biir loolu rek euh, niñ ko baaxoo di def dañ ci daan ànd ak ki nga xamante ni mooy soxna mbay Mbayang Thiam Diène waaye yàlla dogal mu tawat fan yii mais xam naa rek fii ak suba wala gannaaw suba dina reprendre euh, ñu koy ñaanal rek wér gi yaram te fu waay mën a nekk rek nga ñaanal ko yàlla fëgg boppam mu dellu si siwaat ci ñun may tamit di présenter ki nga xamante ni mooy Eva nekk ci plateau bi lépp luy taar ak luy rafet mu koy indi di ko wan li ma leen présenté suñu dame du mois euh, dama leen di wax rek ngeen bàyyi ko bàyyi ko xel mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi Yacine nuyu naa la. soxna Daba maa lay fay. Mhm. maa ngi lay nuyu di nuyu équipe 2STV yëpp. di nuyu mbooloo mi fi toog. Mhm. ak képp ku ñu seetaan. Euh, jërëjëf Yacine Cissé comme niñ ko waxee rek euh, gannaaw liggéey bi yaa ngi choisir li nga xamante ni mooy sport. Euh, muy sa loisir sport bi nga jël muy volleyball mais bëgg nañu xam volleyball naka la taxawee. volleyball naka la taxawee volleyball sport la. Mhm. sport la comme sport yëpp sport d'équipe la. waaw comme basket football ak yooyu yëpp sport sport d'équipe la daal mën naa wax. Euh, ñaata ñaata joueuse ñooy nekk ci biir terrain bi surtout yéen jigéen ñi. di nga dina am six joueurs six joueurs si terrain bi. Mhm. am six joueurs yoo xamante ne ñooy nekk banc de touche. ñooy remplacer ñooy remplaçant yi. Mhm. waaw Yacine ñu bëgg a xam yow ban année nga commencé def sport boobu. Mm, daba nag volleyball maa ngi ko commencé à bas parce que dama màggee ci cité boo xamante ne volleyball moo doon moo doon suñu sport favori. Mhm. donc képp ku màggee ci cité ba rek def nga volley mën naa wax. maa ngi commencé nag dugg dëgg ci compétition yi en 92 92 laa commencé compétir. 92 mhm. ma nekk ASECNA di fa jouer ba 2001. équipe ba dissoute ma dem DUC di fa jouer ba 2003 2003 laa arrêté. 2003 la arrêté mais pour ñu gën a xam kan mooy Yacine Cissé defaloon nañ ko benn portrait gis ngeen rek saa yu ma fi toogee may tooñ ñi sant Cissé Camara tey nag yàlla nattoo na ma invité boobu euh, nañu dem ba këram rek euh, xool portrait ñu fa jëli woon dellu si waat ci plateau bi maay euh, vice-présidente commission genre fédération sénégalaise de volleyball bu ko weesoo nag man je suis diplômée en management du transport aérien donc milieu aviation laay liggéey yàlla def nag ma bokk si euh, commission sportive donc euh, muy leneen lu ma yokk samay activité Yass xale la boo xam ni xam naa ko boobu boobu ak léegi ëpp na lu mat ñaar fukki ku tey ku respecté nit ku baax ku nungoo liggéey ku fonk ay waajuram ku fonk ñëpp man nag spécialement man sama nit la parce que sama yaay Yacine la ba mu nekkee xale bu tuuti ba léegi yaay laa koy wooyee maman moom itam moom mooy wooyee moom fils ni mu mel nii fala na ko jàpp foofu. man bi ma koy xam ça fait maintenant des années boobu mu ngi nekk asek naa di jouer mais tempérament bi ma ko xamee woon moo nekk ne elle était très calme Yacine du énervé si terrain. bu ñëwee li mu war a joué lay joué bu match ba jeexee pare na si du taxaw du polémique nekkul ki nga xam ne dafay ñëw di xeelu adversaire am wala mu koy wax naka su dul noonu ku serviable la pour pour pour rendre service nit dina ko jaral lu nekk waaw dina ko jaral lu nekk am na yar am na teggin vraiment macha allah. volleyball activité la comme activité yëpp activité secondaire la. donc euh, mun nga ko def di ko boole ak liggéey mun nga ko def di ko boole ak étude du nekk loo xamante ne dalay gàllankoor si dara. am na yoo xam ne bëgg nañ ko am si volet bi te amuñu ko donc sama objectif daal mooy loolu jàppale leen bu baax ba ñu mën a yegg sori ak volet boobu jigéen ñi ñoom ma tax gën a jóg. ko nag jot na moom su ma ko li ma koy xam ne ko jot na jot na ca jot na loolu daal laa koy tëjee te nee naa ko nag bu bu fekkoon moom parewul man pare naa ci dinaa def li ma war a waaw mu mel ni kon yaa ngi ci volet bi nga xamante ni mooy sport di def volleyball est-ce que am na lenn loo ciy gagné wala loisir bi rekk moo la ci dugal. daba amul lenn loo xamante ne mën naa maa ko si gagné lu dul mbégte bi may def di ko def peut-être ndax euh, yàgg nañ si. Mm-hmm. mën naa ne du loo xam ne dañu koy fay moo tax ñu ciy des. Mm-hmm. mais bëgg biñ ko bëgg. ba pare bëgg jàppale ñi nga xam ne ñu ngi si biir moo tax ñu koy def mais du la dara loo xamante ne dañ ko si jëlee. mais amul kon revenu. Euh, comme football ni mu amee xaalis ni ñuy fayee prime yi ak yooyu. mën naa ne amul benn revenu daba sport bi daa amul benn revenu. ñi koy def ñëpp mën naa ne amour moo leen si dugal ak passion mais amul benn revenu. ah loolu dinañ ci gën a dugg si bu baax a baax parce que nag wax dëgg yàlla euh, gis nañu football bi peut-être que euh, fédération wu football am na lu ñuy def euh, ministre de sport am na lu muy def ci wàllu wàllu baske wàllu football mais kon nit war nañu mën a laal lu demee ni volleyball bi lu tax ñoom dugaluñ ci seen loxo dañ leen a xamul wala nu mu demee. du du ñàkk xam du ñàkk xam ndax volley du loo xam ne dafa récent si dëkk bi. ministère daanoon na si dugal loxoom nag. Mhm. am na ay temps peut-être ñu ngi si doon dugal seen loxo bu baax ñu koy sentir du ma ne sax bu baax a baax. mais ñu ngi si doon dugal seen loxo ñu koy sentir. Mhm. mais instant bi ñu toll nii. dañ leen sentiratul dara daal ci ci ci si volet bi. donc mën naa wax depuis quatre ans déjà ministère subventionné wul volet. peut-être euh, comité olympique moo ñuy jàppale. léeg-léeg at at yi passé yëpp ñoo ñuy jàppale di ñu jox ay subventions. Mhm. mais ndimbal gi daal jógewul ci ministère bu baax. mi ngi ñëw mais pas bu baax. Euh, waaw lan lan moo waral loolu est-ce que fédération bi day toog di saytu comme ni football bi saytoo wala nu mu demee. Hmm, fédération ñu ngi def seen part ñu ngi def seen part mais dama yaakaar ni ñoom si sport yi ñuy gën a gis la gën a bëgg dugal seen loxo donc yu mel ni football peut-être peut-être ak lutte yeeg yeneen i si kon volet bi dafa amul visibilité. voilà promotion je pense que promotion volet bi moo des. Mhm. te fi mu nekk nii si loolu la ñu bëgg a jóg. Mhm. dañu bëgg daal fi mu nekk nii def promotion vole ba nga xamante ne. Mhm. bu dee ministère muy ministère ak yeneen euh, citoyen sénégalais yëpp dinañu ñëw boole si dugal seen loxo si volet bi. ndax ñu mën a am sax bu dee ay promoteur mu am ay euh, sponsor yu ñu jàppale. li ci mën a dugal seen loxo. Euh, jërëjëf kon nag gis ngeen rek lii mooy li ñu leen muy Yacine waaye rek dañuy gën a yaatal waxtaan bi Yacine euh, mu mel nii dañoo gis ni euh, souvent góor ñi dañuy taxé jigéen ñiy def sport ni dañoo xaw a masculine euh, loolu est-ce que dina leen arrivé. ndax dama leen nuru ko masculine. dama la koy nuru. de ndur woo ma ko dox dëgg <laughs> mu gën a bëree nag wax dëgg yàlla ci football bi parce que xale yi football de boo leen di xool seen démarche day changé dañuy yaakaar ne peut-être góor mooy dox surtout boo toppee ci seen gannaaw euh, ba pare day ànd ak euh, dañuy jël allure góor parce que dañuy wàcc seen tuba yi euh, def ko mu wàcc affaire yooyu yëpp sol ay training mais yow wax dëgg yàlla nuru woomu ko dama sport bu nekk ak lu muy développé ci yow dëgg la tey boo xoolee basket basketteuses yi. Mm-hmm. boo xoolee doo wax beaucoup dañoo dañoo masculine. dëgg la soo xoolee par exemple handballeuses yi. Mm-hmm. noonu. mais peut-être boo xoolee athlète u ñuy def athlète ak yooyu leneen la sport di développé si ñoom. c'est vrai seen muscle yi mooy gën a développé seen seen seen ñooñu seen muscle ñooy gën a feeñ. Mhm. que yeneen sportif yi. ok waaw. Euh, jërëjëf gis ngeen nag Yacine Cissé lim ñu indil tey waaye sant wee ma ci jaaxal mais rek comme ni sunu émission daan tëddee saa su nekk euh, bu leen fàtte ni euh, gannaaw Eva Tra ak Soxna Mbayang Thiam Diène ak la dame du mois bi fi faral di teew di ñu wax rek ci li muy waxtaane dañuy daal di am nag beneen invité boo xamante ni lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram tey nag ñu ngi leen indil médecin boo xamante ni day yëngu ci wàllu sport d'autant plus que suñu daam du mois ci sport lay yëngu ñu indil leen ko muy professeur Ndoye nekk fële hôpital Dantec bàyyi rek mu gën a yaatal présentation wax ñu it liggéeyam ci sport bi ak ci volley bi lan la.